asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay nuyu fii ci Gambian Talents TV di leen bégal di leen béggee ah, niñ koy defee saay su nekk rek ah, ñoxowaay show la ah, may jàkkaarloog ay ndaanaan ñaar ñetti fan yi passé ni yëpp ki kuy toppa Gambian Talents you yu have been seeing what we are doing bringing you different programs definitely ñu ngi am Euh, tries jot na ñoom laa nekkoon di waxal ñaari fan yu passé nii coow laa ngi ne cour seen diggante ñoomi neen Kaaw Yoro mi nga xam ne mu ne moom moo establish euh, operation remove Barrow which was the first one being established balaa three years jot na di ñëw moom laa njëkka interview of course mu wax kàddu yu bari ñu jógee ci loolu interview ki nga xam ne mooy Kingsport gannaaw bi nga xamee ne three years jot na si loxoom la ko yàlla teg moom moo commencé loolu ñoom Abdou Ndiaye ak ñoom Hadji Tunkara nekk foofu nag ci Gambie di ko jàppale trier sangine cour jamono ji mo le réew Gambians yep around the world are actually talking about it either you like it or not bugan ko bugguloo ko three years jot na mu ngi distract Gambians around the world ah, demba nak ñu tok rek and we had a pronouncement from the leader of the United Democratic Party ah, lawyer usenu dabo through um, a press conference in which ñu garal kàddu dal ñom UDP pour xamal askan bi ne ah, ñom kat sen position moy president baro gor kadom wax waxeet waru fee am soo gisee askan bi sànnil ko karta dafa am nangutoo goo xam ne nangutoo woon na ko ak askani Gambia muy ñetti mbir ñeneenti mbir yoo xam ne waxtaanee woon nañ ko euh, benn si yooyu mooy woon ne président bi nga xam ne moo war a toog foog nga nekk koo xam ne independent parti bi nga xam ne moom nga nekk euh, pour join am am euh, euh, pour pour nga taxaw as an independent candidate and not representing a party beneen si yooyu mooy ne tamit yow su élection bi passé yi tamit ñetti at rek ngay toog doo toogaat am for a second term da ngaa facilitate election pour am a free and fair election maanaam daal you will create a level playing field ak yeneen yoo xam ne waxtaanee woon nañ ko foofu ca coalition bet d'accord ñoomi neen Lawyer Darboe si press conference am bi nag mu fàttali Gambien si ne moom Lawyer Darboe wala ñoom UDP nag dañ bokkoon ci coalition bi ak li nga xam ne moom lañ nangu woon ay at ak dara ci gannaaw gisoon nañ Lawyer Darboe génn joxe statement wala boog mu am télévision interview amoon mu ne képp koo xam ne pare nga pour ne dangaa challenge président Adama Barrow's decision pour mu toog for five years he will see nag décision boobu ñu wecceeku wecceeku sëñ moo waxoon wakkat nuyu naa la njëkk ñu nuyu leen nga nuyu wanteeg ñi laa déglu ñi laa seetaan yi ah, ko xam ne yaa ngi maa déglu mbaal bi tentu la mbaal jale maa ngi naa gërëm di leen santa ah. ah, bi bi lii am démba taalibe ñu ngi maa contact looy wax looy wax looy wax waa xam naa dina wax waaye alhamdulilah tey maa ngi am PAOS Gambia Talent fii si suma biir nekk in Seattle Washington ah, first of all maa ngi wax taalibe yi ne suma beneen Facebook bi nekkuma ko di ko use ba ibu Serigne Capacole bi laay use soo ku maa toppa si ba ibu bi bu leen ma topp foofu dem leen si Serigne Capacole bi boobu laa nekk di use léegi nii nañ dem pare naa léegi ma laaj la njëkka mhm. ah, balaa ñu ñëw si démba mhm. yeego oh, ci nguur gi mhm. Uh, migonna pronouncement <laughs> ne he will see anybody in court <laughs> ku champion ne president baro dafa wara wàcc su ñetti at yi jotee <laughs> non nga interview lolu loolu nako mhm. man ko uh, man man um, soo gisee loolu mhm. balaa di wax Lulu, mhm. man I am among of people ño xamné ñun ño wax ma maa wax ah, ah baro 3 years agreement la fa def fekk affaire bakwe bi was hot ma bëggoon pour xam ne you know they just have to go they have go loolu moo tax ma ne baro three years la am ma ne léegi fekk léegi three years nga am defal three years bi ah, baro na wàcc lan moo taxoon nga wax loolu fe fekk they mess up ah, the ah, this backway thing they mess up there they went and then they you know start all this BS xam nga so loolu moo ma ah, ah, loolu moo tax man tam ma mer ma ne ok three years bi la ñu wax agreement is agreement mm-hmm. less than two days mm-hmm. moom daaba fully loolu moo tax on that day mm-hmm. on TV everybody was uh, attacking me daaba is tontu ne ba ah, ku wax Barrow dafa wàcc is going to take you to court waaye I'm very glad ne you lawyer daaba honest billahi lawyer daaba bugut Gambia Lawyer Darboe is a very selfish person koo xam ne boppam la gis waaye gisul Gambia lan mooy sa firnde xam nga yaa ngi meeg ay accusation waaw allegation yu bari kilifa la ci biir réew mi mu nekk digga he is the head of a political party <laughs> uh, there is no doubt ne moom ak patem <laughs> sacrifice nañ lu bari for Gambia mu nekk digga PRRC bi nekk nii last season bi ak this sitting yëpp UDP <laughs> uh, mooy di only party boo xam ne xaasal nañ leen ci ab diir boo xam ne seen members yi ñu ngi ñëw di wax li nga xam ne daj nañ ko soo déggee looya daabo mm-hmm. ñun la man maa doon campagne al Lawyer Darboe. Mhm. Lawyer Darboe loos mi very Lawyer Darboe sama poste la nekkoon démba sama poste fii fii la nekkoon lu ma ko neex laa ko def Lawyer Darboe suma kër la ñëw ñu toog di waxtaan nii. Mhm. Lawyer Darboe tey mhm. ak Lawyer Darboe démba du benn. Paos how many years people are following Lawyer Darboe. loo ah, ma ne suñu ah, election bi after 2006 Lawyer Darboe mu ne. 96 ndax ah, mu ne. wax am ne yu yooyu la doon wax ñoo fi nekk di ma support youths yi youths yi youths yi how many years only the youths you know ba tey Darboe did not make any changes loo xam ne mun naa mun naa dem talk at the side make keneen talk loolu daal du ko mën a def. fooguloo ne loolu is an unfair statement ah, ma ne parce que waaw kay gis bu bari. waaw soo dégloo looya daa ba. ñun si overall bi lañ bugg a man si bu ma man moom laa bugg a bu waacal. waaw soo looya daa dafa greedy. wax la. dafa teg ne ku dul moom. is going to come in mhm. ma ne. Mhm. suñu interview boo xam ne ñu ngi ko amoon in two ah, ah, ñu ngi amoon a rally in in two I think it's 11. affaire uh, affaire leadership ñaari nit ñoo challenge Dabo. ñaari nit waaye Dabo dafa bañ. mu ne du wàcca. So the same statement that you know Lawyer Dabo is making still uh, Pipi Demba is the same thing. Uh, that is what is going on. Hey, you are. Uh, uh, UDP, uh, we have a uh, executive meeting. We executive are going to talk. No, UDP is only one person. Monica Lawyer Dabo. Okay. We are there, but we don't have no voice in there. What lawyer Dabo says is what is going to happen. amuñu fa benn voice. ñu bari ñu ne danga ngay waxantu rek. dama bokkoon UDP dama bokk UDP mosulooy bokk UDP in reality. <laughs> lan mooy sa tontu si loolu. I have my proof that you know suma fun baa ngi nii teg. Mhm. nañ laa tey ah, xam nga people who are saying you are not at UDP da da da those one ñoom nekk UDP 2016 ñoom ñoo nekk di confuse loo lawyer Dabo. paa bi dañ ko confuse loo loolu moo tax mu génne tamit di def lii gis nga démb already dina ñëw si statement boobu waaw léegi yow yaa ngi woon foofu lan moo tax nga génne UDP maa ngi génne UDP it's just man ah, ah, ah because nga génne UDP ak lan moo tax nga génne soo gisee ma génne UDP it's all because of Dabo want to stick in power Dabo buguta am um, ah, kenn barke ku dul moom ma ne fii liñ taxaw in 2000 and ah, one election ñu demoon pour euh, pour coalition ñu ne daabo ne daabo lii la ñëw def fekk léegi dafa ne moom dëgg la léegi lu ñu bëgga moo nekka pour léegi euh, ñu def euh, coalition ñu tànn nit daabo mu ne suñ ko tànnut moom kon Yaya Jammeh na fa nekk we did the same thing 2016 Mm-hmm. loolu 2011 la woon not 2001 2001 nga li 2011. wa non uh, uh, uh, election waaw xam nga so léegi we did a coalition. Mm-hmm. coalition bi Dabo mu. the following presidential mm-hmm. campaign. lawyer Dabo mu ne. moom si jiitut. Yahya Jammeh jiite kon. waaw their stance have always been the ñoo am majority. loolu moo nekk digga loolu moo nekk digga. so ñoo am a jiite. ah yaa moom interview. waaw ah, ñoo xam ne. But if you are fighting with a dictator, you have to put your things aside. This is what lawyer Dabo need to understand. And this is what I was advising him. Mm. Manakone, you see, Hitler Hitler was killing people around this world, mm -hmm. and World War II was going on. Mm -hmm. Okay, but guess what happened? The world put their difference aside. All of them they came together. They fight Hitler, mm -hmm. and then they remove Hitler. So the only solution, lo hamne lo ya ah. Lord, I have to put the majority aside. Let him come, and then we select someone. You know, uh, uh, uh, um, uh, uh, name them, uh, name them election. moom su wiinee no problème lii lañ ko wax Ousainou Darboe agree waa noonu la so at the end of the day ñu toog park park la Ousainou Darboe mu ne de if la de mu ne if they don't select him kon nag ah, Yaya Jammeh na fa nekk that's why Yaya Jammeh was there for 22 years Lawyer Darboe is the one who waste our time and um, ma ne la wax de next election ya ah, Lawyer Darboe su taxawee ah Adama Barrow dafa win maa la ko wax tey because hey Gambians are not stupid. Mm -hmm. Today we are see Loedabo. Mm -hmm. UDP people, not all of them. Mm -hmm. Majority of the insult today that we are hearing is from UDP. UDP they no saga jola saga are doing is UDP people. And then the silent majority are watching and they are listening. So the gis nga soo gisee Yahya Jammeh lose this election is because of the majority people are not stupid te maa la ko wax billahi wallahi te if any day UDP ah uh, uh, uh, this election maa ko even one year. waaw oh, oh, oh, Baba Jah loolu is very funny gis nañ ci diaspora bi. Mhm. Dabo mhm. he just returned back to Gambia. waaw we've seen evidently. Mhm. lim am. benn political party amul ko ci diaspora bi leaders yi right now my party mu ngi in Germany <laughs> ah, Halifa Sallah mu ngi fa jógee <laughs> shortly after Dabo <laughs> ah, we have other people ah, ñoom Mama Kandeh yëpp dem nañ ci diaspora bi kenn amul structure su UDP across yow yaa ngi fii Seattle ñëw na fi fi def gis nga ko lim def for the past six weeks in Europe though it is seen so evidently there is no doubt that he has a massive support in the diaspora Gambia bi mu trafic bi was ma li ñoo mën a compare loolu rek mooy. président am am am am Sénégal. moo nekk dëgg. information is not gonna win. ma ne. and this is not paid crowd déedéet déedéet déedéet déedéet ko ne. Mm-hmm. na indi bakaw rek. Mm-hmm. gis nga foofu ñu fa toolu. Mm-hmm. dañuy ah, indi délégation from bañ ah, Basse. Jaara. Badibu. Fuladu. Mm, ah, you know playing lañ But that's what have been happening though wow, wow, wow, that's what have been happening everywhere and even baro su that's what happened Wow, exactly Uh-huh. So, uh, Legi, maluma la wahani, mm-hmm. moo the silence majority is my UDP we are fond of that crowd mm-hmm. Dabo 2019 uh, uh, uh, na na 96 first rally bi mm-hmm. bir kama lañ ko def wa bés bobu lo Dabo mënut munta wàcce because of the crowd because of the crowd loolu moo tax lu a wàcc waaye every election Yahya Jammeh duma ñu. déedéet according to Darboe recent interview a concede defeat. waay so de Yahya Jammeh daf ko defeat. ma ne Yahya Jammeh musut ko. why is congratulating Yahya Jammeh. mu ne Yahya Jammeh musut ko defeat moom I uh, uh, bi la woon rek. <laughs> Ah, système bi ah système bi la woon. waaw waaw waaye before the former system. Yahya ah, ah, the former system. njaago yi dem nañ seet Yaya Jammeh dem nañ di ko béyal waxut former system poli yi dem nañ si Yaya Jammeh ko waxut Sarakunda Wendeya béyal Yaya Jammeh dem gisal ko waxut fo Sona why today if he not a hypocrite why today dañ waxante dëgg waaye Gambia we have only one problem de is this oil power this oil power kii moo nekk to our national security today suñu national security, bu ñu Lawyer Dabo is a threat to our national security Lawyer Darboe démb moo fi talk. flip flop within 24 hours hey. why waaye moom mi ngay right now position begin a démba which is telling you, mujjee loolu position UDP la officially that interview according to him and according to the man interview na Almami Fanding Tal who is the spokesperson of the UDP moom Lawyer Darboe tamit interview naa and I threw this question to both of them together with other UDP militants and according to all of them that was lawyer that was personal opinion nekkutoon opinion yi parti bi. ma ne. so démba statement bi ñu make. Mhm. official opinion yi parti bi la. ma ne. I'm going to tell you one thing. Mhm. okay I'm a UDP member. lenn laa laa wax. Mhm. UDP is only one person. moo nekk lawyer Darboe. how many years loolu laa bëgg pour mu. Dabo parti bi dee. waaye jàpp nañu Lawyer Dabo I mean UDP succeeded. okay and they came up am very glad you took that point. waaw soo gisee loolu def. moom kenn mooy parti bi. waaw suñu jàppee Lawyer Dabo ak 11 all other executive. waaw senior executive members ñoom ñëpp dafa bëgg a Gambia. yàlla dafa woon wax Gambia ne. Gambia you guys are breaking me and tey seen soxla bi naa ko faj waaye ni ko yàlla fajee yàlla dafa jël looja within three months if you see that uh, uh, soo gisee te Adama Barrow succeed it's because of lawyer Dabo It's behind. whom we had a call that came through. Wow, and we had to stop that. so foofu ah. if lawyer Dabo was not behind bar. Uh-huh. even today. Mm-hmm. Yaya Jammeh will be the one who is ruling. Mm-hmm. kon loolu. because uh, because of moom lawyer daa E kenn càmm lii moo tax yàlla woon waa Gambien ne dinaa seen ñaan boo xam ne loolu ngeen maa ñaanal dinaa seen ñaan bi dinaa ko facc waaye dinaa leen won ne problème bi kan la loolu moo tax ñu tëj looya daab seetal loolu looya daab dañ ko tëj in three months eh, ñu far Adama Barrow ñu dem congress ñu fal ko ñu am élection in that three months Adama Barrow gagné waaw waaye li ma wax mooy. tey waay yàgg yow sa accusation mooy ne. Hmm. Ah, UDP lawyer Darboe. Oh, waaw but it's only one person. yeah but loolu laa la ne doo. don't you think that would a wrong. Uh, uh, uh, argument knowing ne. déedéet déedéet if he was not behind bar this thing is jàpp ko but party bi still okay it's because of it's because he did not have access. Ah. Hmm? Ah, Amane. Hmm. Adama Barrow lawyer behind bar. mun ñu dem ñu taana docteur Aïssatou Touré waaye docteur Aïssatou Touré Aïssatou Touré UDP kan moo ko xam xanaa ñun barke wuñu ñu fa nekka xanaa barke wuñu ba ñaata nit ñoo nekk UDP ko wax. exactly hmm. so ma exactly and those people are members of the party let him back them but he refused mu bugg a pour bi mu dem jox ko keneen fi ngeen war a xam ne UDP is one man party. that's his lawyerdom su fekkoon one man party la exactly ndekkoon li nga wax uh, if to fake any more moo suggest pour ñu Doctor Isaac Ture. Touré <laughs> ndekkoon gars yi taxawal Doctor Isaac Ture. but eventually Doctor Isaac Ture did not understand. <laughs> message boobu mënut a because they don't give him access ba after the campaign so he did his own interview When he was uh, writing a message moom kooku la suggest woon loolu Legi, mm-hmm. but he was not having uh, access Puru message yooyu yëpp génn mm-hmm. loolu moo tax UDP dem ñu fal aada ma ne demba si ah, te demba si bi moom looya daaba mu ne affaire yi three years um, affaire yi ah, Adama Barrow ak agreement bi mu start di wax waaw three party belong da da da and then before he was saying that he was not there That's what he was claiming. But today it seems so like he was even there. He's the who signed the agreement. The one that, because temps boo xam ne xaraam baa ngee ñëw loolee daa nii la def gis nga yàlla dafa jagar xaraam xaraam bi ah ta bi ñëw ñu ne xaraam xaraam xaraam xaraam du ko fii ñu ne ñëpp noppi xam ne temps bi dafa ñëw mu presse fii jaala ñu bi dugg na. déedéet déedéet waaye am léegi nag loolu moo tax tey because démba léegi daa ma foofee nekkoon his position jox na ko di highest respect Adama Barrow did everything that he can do pour Lawyer Darboe baax waaye paa bi baaxul kii moo bitree Lawyer Darboe ah, am na kii moo bitree Adama Barrow hey gis nga kolere Adama Barrow daf ko ooyee papa waaw ooye suma baay nga suma everything nga mu ooyee ko um, uh, uh, uh, moom Barrow mu ooyee Adama baro ne Nelson Mandela. Mhm. Barrow Dabo ooyee ko. the Moses that saved us from Pharaoh. jeex na ñoom ñaar ku ci nekk ngay tagga sa bopp di tagga sa morom. jeex na jamono jooju noonu Barrow was our Barrow. Mhm. anything that Barrow. fekk affaire baa ngi neex. waaw waaw obviously. Mhm. Barrow. ci and he was misleading Barrow. ci National Assembly election bi. Barrow actually dafa teg. uh, his vacation mhm. mudem manka campagne no campagne yudi dedet du manka makunda gambe yep la round gambe yep la round te baro ah, baro is the one who found udp because before we don't have money we don't have money baro na kany la fi baro baro kany la fi dedet mutuma ndi bo suta fuma nyu sute hani de mutuma ndi bo tunda yaje le president ah. aka bidam ala longo president o keso stole kapa kesi noir an barika fa da president ka bi wolt ah, barika fa nyamen deng baro fond udp since when Hey? Birakete president. Birakete president. Birakete president. Niaje bi if bi UDP bi. Ni député ya beso ala tella man soko la juma long. Ala ni mbaro. Loolu ne moom moo leen foon ñoom ñëpp. Moo nekk dëgg. Wotaay ma mu naa naa mu ne atina wotaay ma ate lawyer Daba Mandiang. Waaye foofu bi nañ fa ñëw 2016 euh, parliamentary election. tactical alliance. xam nga toj tactical alliance bi. ñu ne nañ moo ya ah, li moo tax ma ne looya daaba is one man part looya daaba mu ne. suñu waxee ne they will do a tactical alliance pour ñu taxawal député yi mu ne moom patiyam bi dafa dee loolee daa bo Gambia la gis ndax boppam la gis. but it was in him alone though. moom ci lim lim coalition bi mu set woon tactical alliance am it was UDP and uh, uh, uh, NRP Ahmad ba and of course GMC my party. ma ne these three parties ma ne. if you watch that press conference. déedéet xaaral ma ñu wax mm-hmm. they have a meeting before lawyer Dabo mu ngi génn. Mm-hmm. meeting bu ñu am moo nekk ne OJ sax moo ko wax si loolu mu ne the agreement was let them go Adama Barrow nu mu taxawee ñu taxawee député yi tamit noonu pour ñu mun a contrôle the National Assembly. looya daabo xane yow di déedéet xaaral looya daabo is the only one ku wax ne loolu du am parce que loolu su amee patiem bi dafa dee. li moo indi xuloo bi Halifa uh, and, and, and, and, and fired <laughs> Halifa Saleh supposedly did it, as, the, as the spokesperson of the coalition. Did it. Then after they even had a press conference uh, in which Ahmad Ba spoke Maifat is spoke, Loyadabo spoke. And who bring that they is who bring it on. wa. Ni wante de garek. Loyadabo is the one mo Loyadabo is the problem here. Momo wa ne sumo party be dafa there. So legi why not we go with our uh, we all go with our separate party. Oje muna kono did it. This is not what we agree. It was this Oje alone even though that was even my, my and everybody. This is what we agree. You can go and pick one, if UDP if you put um a, uh, a someone candidate. or uh, candidate in uh, in Serkunda West, no more no, or other party will do the same. You can post someone in Tiang. Um, NRP will put uh, so, someone in Badab Tiang. Mm-hmm. Limo tay president Baro président Barmune mm-hmm. tactical UDP. xam nga looyee dama mu ne tactical alliance ah? waaye président Barrow temps mu ñëwee président Barrow mu ne ko ne tactical UDP lii moo tax UDP gis nga we the UDP 1996 we are ñu ñooy taxawal ah, ah, lifin parti mm. ñu jox ko Barrow Barrow du taxawal parti de ñun ñooy taxawal parti gis nga tey loolu wax nga ko si ma ne ma wala tey ah mm-hmm. people ñoo xam ne yéen a ngi déglu di seetaan Niokhobaay Show fii ci Gambian Talents TV Serigne Thiapathio li lañ am muy baaba Jah dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la gaaral fii moom moo ko wax waxuma ko he used to be a member of um, uh, uh, ki nga xam ne mooy UDP of course mu yàgg a nekk foofu noonu kon ñu ngi koy bégee bu baax a baax a baax. Ah, programme bi is live nag on the Gambian Talents TV ak Serigne Thiapathioly si boppam ñu ngi leen ay bëggee yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan Tactile Alliance bi lañ nekk di wax Serigne Thiapathioly ñu continuer rek ba tey gars yi def nañ parliamentary election bi but UDP won majority lawyer da boy banko ta aba fa ngone ne ka wolet fa ngone ne ka wolet banko ta le bob hangu jama 30 He has majority of the seats. Ala longo wo tati something seat ita luafa li no la gama new constitution ba ima wo uh, ima ima ima wo soto wo sem wotena. So they cannot change it. How how am to nyaji ba? percent of I mean, uh, uh, those those those um seats. Mbadu de, ha, mbadu tonya tonya bi. Mm. Itolo majority ya so. Pour loi do ba banko la constitution ko mm. pour ilo deputy damande damawol mm. yo falling because wo mo table so they need other deputy. pour yeleka anim fanan niaje bi UDP yo yo dibidel ta ye soto ala la man soko la president baro na fulo president baro dun tala moto kono atata campagne la nim president baro man campagne ke no ndala nga fo edon ñin fengo be yude pita because alon ko i campagne tan baro tolla ko ale sono to baro la ne talo i campagne tan wala ni yele ne talo beji so na biri meyo e, election nata ni ba campagne o kela ye a coalition <laughs> ye ko coalition to use ye coalition hani e ba kam patio mu ye because of because of mun kada député carte fayo e malla fi wole ke meyo carte fayo wana meyo carte fayo almaje mum yala a kafga barolo londi kirib kar hani mobe lota patio wala yatin wanan koy ko okay. Mhm. ala tan la man sokola nim baronten dum bi mm. tan dum bi mba yaja me maro kono ok ñu continuer ba tey few um, ba mhm. ñu déggaat couple of weeks ago si meeting bi xew uh, uh, ne um, dëkk bi am na système regime change mhm. waaye amuñ système change mu sample foundation yi first lady bi muy Fatou Ba Barrow ne loolu constitution yi réew mi empower would first lady's office <laughs> amuñ provision provision boobu noonu. mu nekk dëkk constitution yi réew mi. <laughs> amuñ office of the first lady. Ah. and foofu di leen. ñu def exactly ma ne wax la ma ne. bàyyi ko déedéet jarul. waaw non ko ñuy seetaan dañ nit pour xam nii am na ñoo xam ne xamuñ ko. waaw tàndarma yi <laughs> dañ indi fifty tonnes of tàndarma. loo xam ne nguuri réew mi ñoo ko moom. office of the president ñu ko ko jox ko office of the first lady mu dem au councilor yi au yenn ko. office of the first lady ma ma ne change amul. loolu fan la nekkoon tam bu doon def office of the president tam bu doon samp. first lady waaw ah first lady fan la nekkoon mu ngi woon si cabinet bi xaaral de ma pare de gis nga ah président bi constitution bi moo ko may right pour mu ubbi office bu nekk ak ministre bu nekk tey président Barrow am na right to office to open a office ah, ah, ah, to to to um, open a minister called minister of backway boys président Barrow am na right boobu. yes loolu right di président bi la. xam nga so tey dëkk boo dem. am na office of the host lady. dëkk boo dem de non xaaral xaaral rek man sax xam naa ne tey óor na ma mhm. ne looya bu tey su toogee tey su moom moo fa nekk tey jabaram mooy nekk fos la di wax wax na loolu for the record he said it in di nekk noonu kooku du dem du def benn liggéey office of the first lady ñaari jabaram yëpp ku si nekk joxe na dat garantie and it is there ma moom su toogee jabaram yi du am kenn ku nekk si ñoom da ngaa continué li ngaa def they would not have ma dafa nekkut waaye office boobu office first lady lu tax the time they were issuing the budget the budget for the office of the first lady lu tax UDP they don't do something about it before but he did not say anything because Lawyer Darboe was there and joining fekk mu ngi doon lekk si benn cin bi time boobu waxatul dara non non cin bi moom Lawyer Darboe nii na def mu gis ah, bara mu ubbi lii ma ne Lawyer Darboe moo ah, ah, moo moo disto baro Lawyer Darboe was there pour soxla moom He was screwing Barrow. At the end of the day, later on, Barrow hamne man, this man is not the right person on my side. Lol mota Barrow fully ko. Pour yo kasi lolo am nañuy argue ne in fact Amadou Sane, former finance minister, because budget bi after they came in moom moo ko présent jeex na the office of the first lady budget office of the first lady bi Amadou Sané moom moo loolu to the National Assembly approve it they could have resigned wala su fekkoon ne they were uh, uh, uh, waaye am na ku ma wax tamit ne lii la suñ aada ak suñ cosaan mhm. sooy lekka mhm. dooy wax la olof yi wax eh, Youssou Ndour mu ne loo lekkut lekkuloo ba pare nga ne danga fee suuf ah, ba iman domoro ke because of kunnum biribade makko e baɗɗerin ne mbaɗa ɓi immantarat de moroke kadi e ɓankuta yaake je lo yaɗaɓo añani tali loolu yaa daabu dafa añaan. ku nu mbiri. soo lan mooy sa réaction to li mu wax ci régime change doo. régime change bi régime change amul. ma ne Sall la waxoon na ko fi. Ah, ah, waaw waaw xanaa. waaw xalifa bi mu demee Europe ñëw. waaw nekkee Europe Angleterre. ababanta. Chatham House. yo loolu yoo sa dégg nga loolu. xalifa Sall la saaga nañ doyam. saaga nañ baayam. saaga nañ ko ñu ne góor jigéen la. ah ah, ah la ah. cagala benn mbuba lay sol lu fi la de everything about uh, about, uh, about about about Halifa. They caricature Halifa. They say everything what they want to say about Halifa because of Lolo. Mm -hmm. I tell you that the same man who critiques Lolo, mom lawyer that would more talk. Mune wow Halifa sa uh, um uh mune wow um amne kaya yang fakai ibanu tuk. waata mu ne bi jii yow sa opinion système na bu bari sax The people are having their right to say what the, um, you know, their option. People can stand and criticize the president. No, rek, rek, rek, rek, rek, achievement. Democracy, definitely. I remember when I interviewed, the time I parce que daf dee londi bouton ma ne duma ko saaga dafay londi bouton waaw waaw te te te te size waisa guma ko denga so luma buka pour lawyer dabo uh, akwa gambia wa gambia muna understand gambia we have only one problem that is this man gis nga tay UDP party you lolu is a serious allegation de baba la ilaha illa mamada you know mané ah ki bari ñu laa déglu Baba ja mané mané haral haral oh oh ma I don't care how many million are watching me mm-hmm. man maa nekk Serigne le borom boss man utuma boss de man dama nekk suma néeg boos ñëw koŋ-koŋ ma ne ko ne maa ngi ne mu ne ma dama la ñëw yokkal man utuma boos man maa nekk borom boos boos man la ut maa mi boos man maa nekk borom boos man boos bu ma koŋ-koŋ ubbil ah, ah ah ma ubbil ko Pa Ousmane ah. wax la lu ndaw gis nga lawyer Darboe dafa selfish soo gisee mu wax yooyu yëpp Pa Ous ah Pa Ous démba lawyer Darboe mu fa he was enjoying lu ñu dab waxu dara si affaire Adama moo wax moo nekk he was you uh, lii moo tax ma ne people have to be very careful with your best friend today some Lawyer Dabo is among of those people Lawyer Dabo uh, legacy bu mu am démba he is he destroyed that legacy yesterday ma ne ah, uh, last week kii mu ngi ko doon laajte this guy Omar Wali mu ne ko de dafa amee benn whatsapp group ñu ko wane sansanding maam maam bolomba ak ak a ah, TRRC looya daaba xam nga lan la wax mhm. mu ne non man xaw ma ñooñu de man xaw ma ñooñu waaye man tamit dañ ma dee saaga man tamit whatsapp man de déedéet. de mu ne xamul Sansanten Balanda waaye xam na TRRC. di waaye moom. Ah, waxut xam na TRRC de mu ne ko ne TRRC boo wax man dama teg ne TRRC boo am nii loolu nga loolu nga miin interview bi maa ngi ko fi amee léegi ma play loolu la looy daan wax waxu ne da xam na TRRC de mu ne. déedéet déedéet man I can bring it inside now waaw looy dabu lu mu wax am just from waaw li ma wax mooy ah mm-hmm. he mm-hmm. su dee adresse mm-hmm. waaw waaw foofu maa paos maa ngi ñëw looy dabu lu mu wax mu ne moom xamul TRRC oo mu ne ko ne times ah, boo xam ne ñu ngi ko ah, def ni boobu nga wax waaye lu ma bëgg a pour nga xam man tamit dañ ma dee saaga si whatsapp groupe bi dañ ma dee lifin nii wax de looyee daal mu ne moom xamut mu ne moom xamut mu ngi nii léegi mu ngi wax ne à ah, whatsapp groupe la so moom léegi soo xamutoon naka la moo xamee ne ñooñu à ah, whatsapp groupe lañ ma ne londo bi moo ko fili ke baa ñu ne londo ne fili taama ma ne xam nga mu moo na firawuna looya firawuna bi moo nekk looya daam seytaani firawuna bi moo nekkal Lawyer Dabo su ñoo ut Firawuna Lawyer Firawuna bi ku ku Firawuna ku ko toogal Gambia moo nekkal Lawyer Dabo because he want Lawyer Dabo dafa bëgg indi problème in that country waaye su yàlla àndee xam nga Yaya Jammeh daf ko press waaye Barrow daf koo jekkale tekkali la ko def yow ngeen wax yaa ngi oyee <laughs> because he deserve everything he deserve everything you know you can call him any name you want Lawyer Darboe deserve ma man xaral xaral xaral xaral man duma ko saaga duma saaga ndeyam duma saaga baayam non saaga du du non foofu ah that WhatsApp group tey Omar Wali lu ko laaj yow mag nga sa doom yi suñ ma saaga su ma ñëwee si yow man la ne ko il a dit ah, nga i diŋol de e, ah, nga kan nen ne mag lu mu war a def moo nekk ne ah i ah, i kene min tole whatsapp groupe o de isa mag lu war a def moo nekk ok no problème whatsapp groupe o kirib kara al nen duroo bula al maa ken too yàlla looya daa bu war naa dem bi anu de exton moo soo gisee mu wax loolu te because eh, because UDP members saaga buy am Gambia out of 100 all UDP xam naa tey yoo comment tey people who are insulting go and check it's UDP on my commentary people who are insulting is UDP so lii laa bëgg a pour nga oda loolee daa condemn them and them hey alka ñëm mu mu def constantly because tey those WhatsApp group are the one maa la wax ne maa la wax ne tey ah give me 30 minutes after the show you can go and watch on their WhatsApp group dañoo saaga yow sa ndey saaga suma baay saaga si ñoom solal nañ ma wii def ne ma lu The latest one yo, yo. is about a month ago, a month or thereabout ago. Below that, what they Germany, but of course, Mohawk with um, uh, uh, uh, one of the militants from no, no. Wow, Team Barrow, deal this Natal, shared it on several WhatsApp group, accompany it with an audio in which ñu ngee wax ne Lawyer daf doon foyee xale bu jigéen boobu wala wala jigéen boobu noonu man ma condemn loolu ma ne dirty politics dañ ko war a by dirty politics whether waa UDP ñoo ko def whether waa Tim Barrow whether whatever su ma la waxee ne for almost one week waa UDP ñu si bari si ñoom I wouldn't say the top executive I wouldn't say there are a lot of seasoned and matured people in UDP though but they also have a lot of militants ñoo xam ne they cause solal nañ ma week saaga nañ suma yaay saaga nañ suma papa def nañ ma lu nekk ooyee ma tribalist texte and a lot of them did all they nataal bi rek. la boobu man jëluma ko nataal boobu niñ ko saakule. ma ne ko I just shared. nataal boobu. it's right here let me see who will comment anybody who comment. and insult me I will block you man loolu laa wax. man ay laa wax. li lawyer daa ba wax. waaw ne moom noonu la dee acté. Mhm. that is exactly how I operate. Ah, ah. now he is going so high <laughs> because ma xaaral ma ñëw waxal la gis nga démba démba de since lawyer Darboe say this mm-hmm. all the uh, most of the UDP um, send big uh, platform mm-hmm. they were saying ne Legi de lawyer Darboe has opened the door so legi, if you are a UDP member get ready and uh, uh, December go out. That is yesterday uh, what they were that they were campaigning. When the party's official started. Wow, wow. They did. You because of them, but lawyer that declare na ne moom legi baro na wacha legi December baro su wachut nen gena. Xam nga waaye xolal déedéet waxuma de déedéet waxuma ma ne waxuma lee daba mën nañu génn de on dit whatsapp group ma ne loolee démba UDP they are just Facebook mm-hmm. Facebook Send platform. yi démba mm-hmm. this is what they were saying You know, mm-hmm. Lawyer Taba has just declared Barrow to step down two years, and this is a uh, UDP stand. So now all what we want is UDP uh, so, supporter to come out of the street. They wrote it on their platform, mm-hmm. UDP Dima, Mm-hmm. And even their uh, Bantaba and so on, those are the bullshit that yesterday they were saying. Why, Haral, man, you gis nga man sa bondi laa nit koo xam ne da ngaa mm-hmm. ak protest du benn de mm-hmm. people need to understand ne if a uh, looy daaba lu mu loolu dafa increase violence so Maluma ad ah, ah, Maluma advise the president. waaye moom dissociate na boppam from violence. déedéet déedéet. he's he's he's done it. he he made that part very clear. ma ma ne how many years you are there and then and then the time Baro say you are his father why not you advise him and tell him my son just take three years and and uh, uh, uh, go down why not you do that the time you were there waaw wadu. waaye deful loolu waatoo mun a yeewulu kese bay. non non no, bari yaa foofu tàmbali ko daa tàmbali la looya daa ba ku wax loolu. and several we via several interviews ak journalist yoo xam ne wax na foofu noonu ne. if you are within moom lu dox digganteem ak Barrow ak advice yi moo advice baro, ak suggestion yi moo def. Mhm. du ñëw public di ko especially when he was serving. déedéet ma ne public bi di wax moom. ma ne musuta am hmm? musuta am moom du musa advice Barrow kooku kooku wàcca looya daabo lu mu bugga moo nekka baro def three years baro wàcca moom mu jël loolu la bëggoon te loolu du fi am and we the Gambians we are not stupid and dumb if any day lawyer Darboe became the president of the Gambia ah Gambia ah Gambia lu ñoo wax démba mba ñoo nuwala wuyala wo banko Malako. la ko wallahi lu ngoolu lawyer if any day lawyer Darboe became a president of this country because hey no hold on hold on hold on we see what the fuck UDP are doing The UDP ñoo how they di saaga Sarah yi They insult Sarah sarakule I'll sarakule only about 10 ba tenne al ba ten. and then and I'll uh, uh, get jalangol ne batu al sarakule Sarah ko ñaamaatu mane ku Money. loolu anam he's a UDP member his father is UDP Wow. okay i am no haral haral but why Lega, lu Lawyer Dabo he did, uh, ah, ah, Luther Lawyer Dabo Munta Gainer who condemn you all the time because your people are doing it. Lima the same UDP supporters are the one that are insulting me, caricaturing me, and caricaturing President Barrow. ñoom ñoo génne audio ñu ne président Barrow Yaya Jammeh baalan di kenn doo wulu katam bi ite fawti loolu fan la fekk pres ah loolu. li ma li ma wax mooy ah. kuy sàkkatee joolaa yi. UDP la man. APRTC they did the same thing. Wow. in fact i am not a picture. loolu moo tax ma ne out of one hundred. ah APRC and all other party they doing only five uh-huh. percent but the ninety five percent is UDP loolu maa ko wax. picture of me boo xam eh? any party. <laughs> while anybody call xam ne feel na ne Pa Ousmane laal na ma somewhat. <laughs> nataal boobu la gars yi di jël mu ngi si suma page bi fi ma xale suma ibbi boti suma boti nii maa ngi foye ak suma xale yi mhm. they took that picture ñu compare ko ak picture Shrek if you know Shrek waa ñu jël Shrek ak suma picture bi moom lañ compare ne man Shrek la waa APRC ñoo champion ma ne ma ne Sunjata Keita ak gars ñoom ñoo start loolu démba démba démba démba ma si jógee ak waa ma ma ne out of one hundred mm. huh? Mm. They uh, GDC or APRs, they are bullying only but UDP are doing ninety five percent because UDP are the one who mm-hmm. are insulting people's tribe. Mm-hmm. UDP are the one ku tey ñu taxaw ma ne maa ngi Africa TV I see these UDP supporters ñu ne waa who are the foolers they are going to state house who is the owner of state house. waaw waaye li why are these dollar doing here. Jamale Batamu State House, Kemomu State House. Money. Lawyer Abu yesterday, he was condemning why, why the Sarakules went there. Da, da, da, da. But let me tell you, the time the we were going to uh, state, state House, Lawyer Abu was there. He was a minister. Why didn't he say something about it? But Lawyer Abu did not say anything the time the Sarakules came there. But the time the Sarakules left, today he want to condemn it. But wondo do. mna Sarakules kana wata idaba It idaba mutaring. Lawyer Abu is a poison. He's a very dangerous person. Legi for Ama today. president barrow need to get ready gis nga waa three uh, anybody koo xam ne yaa ngi gain uh, three years xamal you are a rebel Do you oo benn para military soojarol la bi naa because a naata pour que man sele boyendi mo président kumada soojarol fintindi ta selo are the only one dani hani de hani de imana na peace la hey ntele ma hey hey mun nga toña fo ñoy so gisee lo dabo ñu ko Okay, kam banan is because you see you are you are a voice to gambia now yes toguma rek bàyyi suma soxla yëpp ñëw fi interview moo nekk a voice yes and dafa am ñu bari ñi laa toppa ah. moo nekk diga ñoo xam ne all they want to hear is for Baba Jattu to say jump yes duñ la laaj sax lan moo tax ma war a jump they will only ask you how high moo nekk diga maa ngi yow nekk Seattle fii mhm. dem naa Gambia mhm. yow a nga fi. mu nekk dëgg wéer gars yi xam nañ suma connection ak yow or what. so you are not a small voice. lépp looy wax nag. it should be something that you really mean. am naa in reality you have uh, uh, generally da ngay def a lot of comedy. sometimes nga caaxaan in fact am na yoo defoon fii nii ba uh, issues with FBI beeg because of ni nga dee raise voice ni nga tàngee. ku la ne da nga ko miin. let me ask you this are you really serious with the position you are saying. I am one billion. hold on hold hani de so dede so gisee mu wax loolu it's because bi UDP ba political mun na bii iba nindiroo minnu la bii moo doo jusoo ta taanoo la gis nga ah, four days ago UDP guy mu ne mu naan na fulol taata state house al muru ba taale fulol faa I have it on my ah, oh, on on my oh, oh, on on my Facebook har har har har har UDP militant. That boy is called Lamin Suare. Abota uh, Badibu Suare Kundale. About basically Jamane. Eh. I got all the information that I needed. But ya bula kabana prison. Eh. Less than three months lo ya bula kabana prison. Hana ma wahlade. Boy only momu ya bail. Kuko bail. Bobu Gena in the prison. That man, uh, since he see that post, that man even contacted me. Muna man nyekamba nun tena ngabel kabana court a uh, a uh, prison. Muna man kamunkole wafu abanu abota babaribu swara kundale abota na uh, schooling ake kotule. Now. These are the words that today we are saying. UDP people are saying. Itaka low. Ikata Facebook. Ikaka jeko. Go. Ah. barafɛla a eh, fulol ta ali invite ali ta fulol numa ali ye kuma kan ali ye ta ali e ye yadi so binu ite this is what i am going to say hmm? limala wa siga now <laughs> you have a voice <laughs> ye kangole soto awla mtonya mol <laughs> ke la moyle ke jibe i think yo tami so wa he war nga Uh, uh, make uh, a, a, responsible statement hani de nde nde ka tonya fo ndin ale diade ma wa si responsible statement wow so ne why udp nyoy e wax lolu uhuh. you is good pour nga distinguish ko. ne some UDP. man some laa wax nekkul yëpp. déedéet bi ko soo ne waaye UDP. waaw mu dégg ko mu jàpp ne loolu is the official statement of UDP. déedéet moo ah. Ali. time bu mu doon interview lawyer Darboe. mu ne ko ne sansan dim bolo mbaani ñëw WhatsApp groupe o feye loolu ne ban kaatu ngoo ñëpp xam ne UDP ko la ka tar ñeneen doro la. soo man waxuma UDP yëpp de. Me, I have a very good rapport with some UDP. Mm -hmm. But, uh, but now, people who are insulting me are the UDP 2016. Mm -hmm. Those are the people who are caricaturing me, but they don't know the lawyer that was in my pocket yesterday. Well, I used I to sit with lawyer double like this. Man, I, I, I, I've written a, a statement Very good. in which I talk to the members of the UDP. I condemn it. I, I have been labeled as a tribalist. Eh, come on man dem waaye dem platform bi every time su ñoo def story just come and tribalist platform. lii de mi ay block dem li ñoo wax noonu. tribalist mi ay leen gën a uh, uh, right now suñ institution bi in Gambia. we are one of those institutions that have multiple programs in Mandinka in Fula programme yi. those are the ignorant ones loolu laa bëgg a ma ma programme yi am start naa ko last week am naa programme yi fula ma ne dangal ko dengal ma ne am naa programme yi aku kiriyel koona am naa nii maa ngi dem defi di benn koto right now ak Pa Ibrahima Ba mama koto soose programme yi soose man ninka but they label me tribalist ma ne suma sister those are the UDP 2060 because they think that mm-hmm. uh, they uh, they they they are so, some of them ñoom lu ñu xalaat mm-hmm. Uh, mm-hmm. continue yeah UDP démba man the time I was supported UDP mm -hmm. I don't see tribe mm -hmm. I don't care about tribe man suma system thereby man dinga ko awa futuuri woyi ndooma baa kiliŋ faa kiliŋ man dinga ko a wele futu bari hani hani hani so rek man wahuma man din kolu de lu ba kan nyuma saga man nyonyula wa I don't see their uh, tribe limota the guy who you know he was insulting ne Let them go and get cutlass. Let them cut the fullers. Let them kill the fullers. I went on Facebook day before yesterday. I have it on my selling Chapacholi. Mm -hmm. What I said is, this guy, he is not representing his tribe. I don't care which tribe he is. Mm -hmm. Because me, if I did something, blame me, don't blame my tribe. Absolutely. That's very if fair. I did something, do not blame my religion. Mm-hmm. This is what people need to understand. Mm-hmm. If uh, uh, if uh, if uh, Lamin Boden came out and released a statement, mm-hmm. don't blame his tribe. Mm-hmm. He is not representing his tribe. I so the same as Yahya Jammeh. But today some people are blaming, instead of they blame Yahya Jammeh, they blame the entire tribe. Uh-huh. So those are the people that I'm at. Uh, I agree with you. Yes, you know. Wow. So, wow. So, lady. Why can't UDP, while a few UDP members yeah. making an insult though does not represent the entire unity. Perfect. Ma, wow. Exactly. Man, look now. Yeah, and and this is what I say. I don't supporters, but suma talibe. ñoo xam ne ñu ngi maa xool yàlla na ko cappaatoo la ka tooñaa fële de. bari i ka mm-hmm. fenkel. waaye loolu loolu bari i fengol ni ka d'accord de. I make ka d'accord it's not lawyer dabo <laughs> wala danga o non senjo jele tadi yamul betax exactly this is what is going on with UDP yes, the board exactly today let me tell you gis nga affaire passport bi mm-hmm. most of the UDP they, all of them they know it is true mm-hmm. I, I, I chat with them sisuf yi ko hato nyalo pa bi nyindo da mistake te jalan ko ka banta an hadi hadi de ikalo ne de bari kuma bo bari mon mun yalo ko jahile le muyti imam fenne lam prati ko wala kalu ha ay rights lo pour ni soto fatol le jaba da hani am rights soto banko constitution le yafo banko exactly alin kana joy ya politician le alin kana joy ya politician le nda wala understand tango political understand ya kuruka loyoɗaɓo critisage de notmine loyoɗaɓo konne mo sofni udp moɗol ɓiye koto jahilol le muyti ni te koy kabo ika loyaɗaɓo tale ika critisage There is a difference between kamo criticize mm-hmm. and kamo hate. Ndema lawyer dabo hate. Though, this is what we need to Be, hani hani hani model bi jambuke bilem yala muna mbuke bilem because they were under dictatorship for 22 years. Yeah, Yaya jame abuse le. Mm-hmm. Wane imam fendalam political. Itoli mu mina political Mm. yamule nte capacole ɗum manta mo nena politicole mo neneta fola capacole ɗo udp ko na mbana fane ba ko ajuwe to kam kenna wa awma jot no ba lola lani man den de dafde de besi suma yaay this thing goes to my mom there you go dina talk kiram ah, ite tale lon banjul wala parfeñe wapa Ousmane mu bàyyi mane last time my sister si koo ki ma toppa man suma famille li li moo tax man amu fa si man ku ma toppa mane Thiago laa seyal suma jarbaadi kooku si kooku mu toppa Danfa lañ santa ma ne bari bu kerawaan paos so pour ne tribalism kaar boobu gars yi loolu loolu ko euh, euh, euh, loolu nka hani hani nka tooña la foy ko tribal kaato juma le ba play kam bi fara feñe a lot of them some UDP supporters wolle ba play kan ko nya jata ale ndama fulat they exactly sa UDP uh, lo waton dolanga UDP lo uh-huh. mm-hmm. wo ya tara mo juma be je be dindi man fenne lo UDP to mm-hmm. loya dabo niyaje bi birin problème mu yala kete jara suma ala ni ah uh, lopi a fel wisconsin jang mm-hmm. ah uh, madison wisconsin mm-hmm. misa lopi biji muruba tio biri wato ah ah ah ah wo iyalon ah ah fenke banta alu njay banta wo time lo loya dabo mo de ya catch as a manslaughter loya dabo ne jamaale tata tola wo iya anin tola tata parce que ntaba udp le 100% loyada bundada to le kallaje al kaba ala bundada wo to bindada wo to ala bu na dunda jimbungu na ila a a to le ka sacrifice je sacrifice ta loyada boy e. bari ñim bojo bojol mu ñela ka tara facebook ba nañ dro ñim bojo bojol aw ma sen jot taju ñu fen fen lañ tajut gis nga dal hmm. bi bi bi bi bi baro dal la interview na la before nga yo baro nga baro nga mm, bar nga toyna fa ala tema de ah, oh, de la haral de man to ñay de ale bi ndaka mo tan ka support de bu ka nu de ka baro la support de ka tu nga gambia lije ka tu nga alen waaw nga ko bi ndin gambia dunda udp bulo kono ha ah? hmm nko bi ntulo balal nyaal bala UDPS nga jube UDPS nga jube mbasila nga fa suñu xamon katum bi mol be nyabu welan koy ko crowd kané ni ni di loyalty wala important UDP ndol metaka crowd push le ndol metaka crowd pull le bari mungena important da wolong loyalty yajele birkama damma damma damma birkama damma damma la carte birkama député sindil birkama la carte damma damma sa te rewol man ni di la bara jube de sangosa ac kan malé bar min findina ni crowd fongo je fanka fan hani bar munande bogada carte o fay Well, they are campaigning against that now, and they're doing everything possible to support people. To even, in fact, those in the diaspora are uh, committing to get their family cards. Ya, ya the, yeah, the majority, yeah, the ya, majority of the silence Gambian. You know the silence majority. Then. so yow general jodal baro nga jama one ñu oh, oh. franchise diaspora man them new in the seattle fee ballot boxes iba fay la a man kɛ pour carte de fɛnw da ma ni ala ta la a man so sɔn ah, ni ni election ni ala ye n si lafta mun nga be soto mbi da gambe mbi da campagne le baro ka dun tanga gambia le jama eh ha mu ngey joxe tegi ambulo ko ko ambulo nga muy de han nte nte tamam fu folo na di nen sa do mo nte nte ba man tole wulu hana ma di na folo brown ambulo ko ki ba do black ne tan yela hen ba man toole wulude nde jaɓa jone walla kan tooleji ɗi mbaɗa magge tooleji nde hani man kumande folo mane ndelaga fode ñing élection o na siita ning alatala man sosonda mba wurala mba mba mection mba dow ko kele bake ay chef mo moni na nga ngana dimbal tujan mbida sacrifice la gambia le ngata de gambia no la jumala mo udp hay loya dabla bakaw rari hani mam matuma ngo hani ko bari ni niyankati mbatala nko loya dabale baka mide munu ministrate ima kese bo jabata Well, that's a very good point. Exactly. Munatina, we lawyer da munu ministrate. Allah la ni fel ba lawyer munu ah, go. Lawyer da bo sembo so the vice president. Lawyer da bo mafo bagan ko le alla lan mbamurundi lalle le mballa lan kele mansa kunda bal komplexe fo biri ya bay biri lo ya da bay wota mo lo ya da wulta atata campagne le bakaw le ni lasmi kam ha bakan ko alla lan no ya tane mbaba mun hey in fact in fact baba ja I'm glad me indi nga op point bobu <laughs> Lima la wax si gannaaw rek ne la da nga am mbolo <laughs> same thing lawyer Darboe ak politician ci Gambie yep <laughs> dañ am mbolo and statement ci ñoomik lawyer Darboe dafa def li ba kaw mu wax dañ la dañ leen compensate mu mention um, Banjul a few places the same week the same week elders of bakaw dem standard newspaper the claim crusade week bu passé nii standard newspaper <laughs> the elders of Bakau including some of seen MPs yeeg dem standard newspaper di claim ne nañ leen compensate seen laan yi benn reference waa afdaay Banjul ne ñu ngi ilifin is on the news wonafike ya hani mba fona tenne hey mbatuba wonafike ya alani jumalom wona nan kaale ko Gambia la fisino daf ko in reality do daf ko who were the Munga them standard newspaper for last week. But Ugo, see there he made. Wala wala no kwe kwa ah? lawyer ya double left ka uh, ah, fitino la wulindi Gambia. So fitino aba wulindi le nyauna price. Hani hani hani ajubi ajubi. Unsettled right now, mm. right now. Ntele, we need compensation right now. Ntele, yo muna muna bakan kol ne loya double jeni kamna muna na biridi bindu nge balu ah, vice president yana. Muna ne man tolu makoy. imandiyamu de bare biri ye bay ilafta ma mangu wulin de gambia e kafo bakan ko ha alla la no nyande gal compensate le de ko koma lawyer dab lawyer dab bani be koma bi de yagal udp na ba udp gambia kana o barola man kana on il lefta ka gambia que on govern country le yagal bi ya on governable ha governable ya bi ba bi ale barosole baro million ba bari moolu le be duma munu Lo ya tiña kaŋ mhm. loya daaba boole kono loya daaba ka do ko ke baroy from monday to friday saturday sunday kata president ba a kata a akata political rally radila. aba balo against la aba caricature la Lo ya daaba le loota jang ko ni momo ko ko jang three years abesuna suna Lo ya loya daaba le loota ka barota ka ngo ay barota le aya tentule aya jay fo abi fo ay annabiyum place ta aya di barola moi nga akaka moses mo be nyaayal mhm. biwomo kilin ha bi han han han jo biwomo kilin wol nata falin baro isa baro alama alembe tanka moja wala wata wala nan kale bi gambia na problème mo kilinati de wala lo ya dabo nyim bi ala taka fitino le dundi gambia an fantala nga fode ya jala nyim 3 years jotna hani billahi bi your true feeling you are just not creating comedy mm, because i'm asking you this because am insama ya jande nyim toñanata majority of mu toñati mm mm-hmm. han udp ko bunena kan jube ya lunin kamun fata wala mu tonyati bari dolbi yalo sonde mo baka fofan yata de aka tonyale ta so a fan yata a bufana santo bari sonde mo abaka fan yata ya lunin kan mun fata wala mu tonyati so birite statement on moy what did you feel when i was terrified when you had lawyer dabo uh, talking about uh, udp's current stance i was terrified birin ngajin ko nyin lafta ya nyin sai lawyer dabo lafta munna wamek adama baro sayin puru ibajela kana banko maro isa foko ah, ha ko mu yala kete kenya mbole kela loya dabole bakela vice president de ni opposition fulo baro ke president di loya dabo ke vice president loya dabo bo si fala ni kansa ndanga fa ni election o mumbina baro ba busakele loya dabole baro ba busala election no kuma alfa adi enuf de lo ya dabo nga kuma fen fele shiri na bungol lafta pour ñi da albe ya record lo ya dabo ba fin la ba fa ko ha mansion carte fele pour ka mamman wulindi anda jube de mamman mu la ba wulindi la de mal de ba fala adingo fele bu du ja wondi dingo fuarol dingo wolle ba fin la andum fanan tel nga kwa mwa mota ya dabo ya chuso ani UDP nko campaign mo nyin 3 years ko ifindita ndela nga fa alfindi sojaro barba sojaro le kila no but UDP nko le police ole be rehearsals that they doing yo bari woni nyimba kili yo hani hani hani hani woni sa tama kilinde sa nyindo sa nyindo dabo ya dake jele so we violence ni sambata another standard le Gambia bin na banko la problem aba bi aba highest level red flag bi Gambia because lawyer da bala nyokumo we banko na catch somebody to another level le anu fana mbatu ha mbandu ha yule pile nyuko banko samba ha hani the a kunu seriously now everybody is taking it seriously abanda kunu yes. nyimba nun jande 3 years kunu jang bari mm. bi birin kunu lo yada ba new statement of findindi i gambele catch somebody to the highest level le no ha so yajina andu fana bi ah, mazakunda le back bono mm-hmm. akasholo nyin tourism leto so i bajala sayin yaalo ne ko wondo ita yeti nyala no so ila e fasa purka bende touriste sino fe bara kuma kilimbole folide wala nan ko ye ko yalon kunun para leba train bar sojarol ba kan tolo nyimfoy hani para kidi wolum itajel siloka nyin tri yesko a lu ko bak tata wulda ya ya yalon lo ya dab mo sifanya nyaade hani matu matu matu lo ya dab lo anybody lo ya lo fo they should really, really watch and try very hard Loy. for pronouncements you make because abanta lolé ñoo jappane moy li am do wanan kale loya damu banko da tratled wanan koko ya jale bi loya dabale ba duma ka kuwol tukutuku mo ken don tangati de wala nan koko ni ka furawuna la loya la ñene loya dabu ni ka shaytani la loya la ñene gambia shaytan la loya wala loya dabu loya dabo ba dumal nim triye script kara be momo ne ron ko dum problem o kon dal fa na douta douta douta nim triye su ko loya dabo finta jana kaka da protest le anala loi kara mu me you know loi tinya ya mota ya soron sanji jo loya dabo ka namo jo banko ba develop no le nyadi le sanji jo abuka namo jo abuka son ka tax jo how many years tax abuka jo sorry ah deglo de lu so mandi. fi ci Gambian Talents TV Pause man Diouf moo leen nekkal. ite gannaaw microphone bi. Baba how many years ngo how many years lawyer daba buka namo jo mm-hmm. ad uh, uh, yaya jammela masakunda nana lawyer daba muta wolto itata ya ikai ko namo nima jo ni next election italola na campaign kodo mu yala moli ya lanu nyoka nanga indesan wata birikama musol mun yala kan jende njay yake birikama wolle UDP muta yajal wotama won jende njay ninga meeting o sodo ka 5555 dala sola ngari min ba wota mo lammaron alma ne manin kafar kala ya muninin loya da bunyo shoron mun wala kala na fota kan yayi ya jilan tabu kafin na sedo abala kira da hali ni mun ba UDP birin kuno e be ba balurin hali bi ba balurin UDP la youth UDP ya député mun londi kombo iskafa la min ardabo ngaje fon nyum fulol la mizindu hayna ah birkama ala nyin ka jamalo ah ba ba Baba Jaa UDP kon wasa jaane a lot UDP hani hani hani nande wala nande kapo ko ma sedo ba lakira ndabu ko fo na sedo ba lakira wasa jaare mu ya UDP ya tele londi 1996 man 2006 fat 1996 ngol ko ala jin ka jamalum baba jatti You are saying some prominent names in UDP. Yeah? Ah, Muna, eh, ika mo bele jaɓe fay tunte loya daɓo ɗuma jaabi a daɓo ninte kadu loya ah, a yallo ninteŋa lon muna loya daɓo banna posole kono kunun am suo pos bila ne kon mool kalu ka fo ha aye aye nka ye mbare loya daɓo jam fa aja fa ñaadi de ye place o di la hey ndaxa place o di tela sibitoni dimanche katantiña hani bi ñeetuye a ah, ni ñe seppu hani defaŋo ni ñe seppu i b'a fo lala haniya wala tanya fu bang baro ye bunya ta bunya di highest palaso mu yala wala haya de palaso bedi Baro bare wala ko loye dabo ye eh. hing, o ma loye dabo wosa. ako baro kun alafta wala eh bi baro ke da fan tangut wala ñu len rek la finally hmm. uh, three years jotna mo indi li yep the coalition agreement hmm. coalition stakeholders yi hmm. all of them do there is division sen bir. uh, may faati génn na finally mungi ngi singgur gi bayna na jamono ji in Germany Um, gis nañ UDP dee ba joxe nañ seen stance dooy joxe woon nañ seen stance these are three parties that are not part of it UDP naka PPP def nañ nii O.J. Altru I remember the last press conference he did and an interview he did with Ramatlaay on my platform waaw PPP de ah, Papa dafa release ne léegi ñoom five years lañ. waaw xaaral xaaral xaaral de. gis nga dis WhatsApp group dis WhatsApp group waaw mm. boo xam ne Papa moo de wax ñoom ñoo attaque papa njaamu yaalong abama bota guinele saka ku dedam di dise whatsapp group li mo da dis whatsapp group ibu kaf imalo fenne ka nangi kamol baneng hey hey fulo nata nyami gambia serero nata wole nyam sunwa nata nyami manjako nata wole nyama ya jelo banko kan ah. momo fesian hani moti <laughs> bàyyi kenn moomu dëkk. jeex na. bàyyi a am ci Gambia. <laughs> ñun baana. yaajelen nga diamu ñam ba diamu kan duma ibe ñu ne de bulu dama lay dégg loolu waxtu bu nekk ne ok waaw kii dafa ñëw man sama bopp de kuy to tell me <laughs> o naatale day ñëw day ñëw day ñëw amanta lansarooti day waaw ñi ñi ñi ñi manqué lansarooti li ma laa laaj mooy Euh, those political parties ak seen stance including Fatoumatta Jallow Tamba Jang PPP ñoom dem nañ Henry Gomez Amat Bah euh, Dr Isaac Touré they are all on Barrow's side but UDP these are these are the three out so um, hani de lo nga fo ye. the ta jela mama kande lo a fo ko three years kuwo ni ñi manjimba fintila le mam fenke mam fenke ita bari mama kande kate da bondi jele kate ite dey hani ha ha exactly hani go go ata da kala je mm-hmm. don fanan ta fala ko na ah, three years ko mumu ya ah, lonka ba kere ninga problem o nata ah, ndati je ngadu njam fitino nyinni nyinni e dati je udp nyim pore ene len jerem baba ja moy suñu gesti jamono jini ci ñoxo bay so la ñu don rapport fi ko action ko amal ni rek diko kala affaire yi Um, three years jot na leadership bi muy uh, coalition leadership balal leen ma uh, ñoom naka lañ uh, gisee yëf yi coalition leadership bi bu UDP naka coalition leadership bi whether UDP la ak ñeneen ñi yëpp seen current stance ak seen current position is what we want to know si jamono ji nii ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet comme ni ma ko waxee rek Serigne Thiapathioly mooy seen si jamono ji nii so yow naka nga gise um, ñeneen ñoom ñëpp last minute mu bàyyi waaw ah, ñu strategic move abanta ah, ama ah, hani ha ha hani amage toleti abala resume le da kan yala ko nyaade le hande may fati ta tusle fola no yajale lungo mina nga may fati ja ako aye fonyola tata si jana atondi karaba beach hotel may fati akafo ko ha ba uh, barole nyanta kasonung a uh, fonyu ko la fala fonyu ko ngo nyino ngo ko kilim bije biri may fati munu ministati maifati ko fo nyin kol are having tradition because maifati wolika ako hadi are having tradition weapon nyunu mu reberol dati nyunu mu nyine de mo maf maifati liaf maifati problem gina wajib ha, ha yo sa image sa aya lon ne ko sa am politician olati sa opposition de fe <laughs> fengo aya wurale ako sa ha fo nyin la ha sa wato Exactly. Ha, bari bari bari wani bi wani wani bi ah? mm. ma kelen so wo bara yo dambe jele o bara yo dambe jele ha, ba baro bara na zimai ma ko ko ka o dambe jele ma fa de hana football hey but do you think he was strategic though al ala fonyo hani de nkan ka won aba resement da kan baros advisor and if three years comes, a lot will happen. I mean, na, uh, during the time. And itoli wale mira wana ye follow. Itoli wale mira. Baranga je, ni three years obina kaira, mm-hmm. kaira yela. Bani leba fitino fanana. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. bara fana ba parede nen isalan ko baralo bankola président ta andu fana montol gambe no le sonna pour moye finde kanna président a ka traitin hmm. président baralo gambia le président hmm. na carte wala ya sindi mba support le up to the last minute so you think my party was strategic hako oui kawala kerengo oh, ah, okay mai fati muya hani football team fongo tabulu mai fati yabu wayi mu nan football team fongo tabulu ba football 1% dafali 0% vote for Amason. Mo mi yɛrɛ hali official fɛn wa ala fɛn ko la. nko bakuye kuwo bakuye kuwo ñe abani min tole itol ministre ti manamo ni bi fin ke kava foñi kole ngal apologize foñi ni lafaka foñi kole apologize ya foto ñato ña ñim mistake kolon abamol ketula pour kana résumé da ka ñiñandi ka fo ko ha foñi kol ñinni ñin a barola mansa bisembe amadou sane fana ye wole fo amadou sane ko ha baro ka banko kodol ta ka bare mu movement ngo muna birin amadou sane bi je amadou sane mu mu mu am mu fengo convict criminal lo amadou sane convict criminal o amadou sane criminal yala ke gambia wani amadou sane soron muna birin amadou sane bi ja ma fo ko baro ka banko kodol ta nda afenge mun nyaba criminal lo muna mbo so pour ka mo pardon baro ya pardon bring ayata aya pardon ay anata amad sanata a palaso diala bi wo amad sana bi wala katalo akatika akatika barolo waya ko barum sungo di barum ne bar munana bi ti yataman diam okay fair enough muna bi amad sana adam sam ko wanan ko ko hey udp sigrid agenda le bebo ni mo ci ta fanyu bulo ci mo la ko dola so ngata ngata ngata penkeya doy nyol mhm. doy mhm. what is your take on doy um ila stance and it will be menke they've been uh, uh, it will be lurin dame be lurin no wolto birada no problem no problem ha met with um 3 years jodna people ngo mhm. woma khalifa la nyantol jaja khalifa is very professional nil ni loya da boy khalifa nyol la ko mo moy num bi loya da ta fanjele jele fen tenda bi afanya jele fen tendal bi mo bee b'a tɛgɛ jalaka because dia flip flop ka ɲaami bi ɲin fon nin da bu disgrace da anko ala legacy aba foka fɔ ala legacy aba foka fɔ ka wuli yaayi yaya jɛmɛ pɛrɛtɛ lɔya da bu balale jale le yaya jame ni lo lɔya da bu buko ti jame lo lɔya da bu karane fa y'a ban pak ake kɛ buko ti ala ndijɛ tɛc nka to hɔsu ba ma ɛ ko ko dam ka ka bi lawale pa bi mala borol min te ni mala boroli min ko ni manu shiata je ba sambala jenali atondi sunrise mama kande a ya fole nun jam ako nyadi ako Uh, three years jot na kuni pour <laughs> baro e fe ko ko baro ni fitino wulta <laughs> mhm. basically is baro mhm. basically for him to respect the agreement mhm. ha ha ma agreement ti mon ngada pour ka wuli long there's a lot of international uh, uh, fenko and that is that is GDC's position ha uh, ko he should respect it but of course they are not associating themselves with three years jot abanda barbi mo be ala ko UDP pi adi one who abi behind Nimbakaw Nanguo. Are they UDP now? All the party, parties are dissociating themselves, though. It looks like all of them dissociate themselves. Ngaside, Ngo, B, Ngaside, Iba Juma ya Yajala Birkama. Birkama Area Council. Imantara Dokuan. Ntelangaf, Otaimo. But Sansan, the Ngamo Quebec and bakane kende I am among of those people, muni Munialo, do Ki, funding Kele Prefinde that protest. More than 30,000. Ngole Ki, Nko, Nko, Tati Satulisa, Nko, Tati Satulisa, Alsa, Alfindalta Peaceful Protest ngogo society no bara alkana mai kota alkana ta alye finda ta peaceful protest 30000 more than that ngole kiye nta fele ngaki mun bare na har bare na birkam funding ken ha wali yalla bara jube de mm. yudi pin kol tada yara fay fane t-shirt to tale ñoom mobilize ndama kala mu defon il faut lan tata de ñoom ita de moto tanan ye musico ta yake ya ani la speak wala problem o kambana because yanum ah ima nka imam pameto dil nimon pameto dila loi man son pour loudspeaker use anya silol ta ha yajel bari biri itu dala yo use wolon paral ta paral ye bundiro kuma su wolto ke bundinti ya gasol yajel so je ye luwati nya wolto wanan ko ko yajel jang UDP yamuta ba ko ikonye ko to la ku kalama biri a mbiye de sunkudo do bije man fa fo mariama solo fo janke solo lombang a audio ta bondi capa colele ba mol koma ntolni capa colwol <laughs> mbe kiling mbi janne nko olu ah, lo min nafa ngani fen ko ke fango nyin a ah, video akola sunguto la video ni fen ko be ngata nko to manyi sunguto andu ya sunguto ni bang aba UDP inata ina talo do kinyi na muri ala ba UDP nko nko mun yaje wala protestantal ñun ye da bula ko ko da abuka bare sigi no rek nafta wala mel ya dati hmm. the original idea hmm. ko kaw yoro wala ka fo kaw yoro gamben de nali so abe india hmm. atela dati operation remove baro ay wala follow yele e a ko ay men claim ngajele baba nen kanko kaw yoro ngani kamba no mu fo a ah, fo ah, e a ah, a a lo mina fulol dada state house ako ye findi fulol fay murba de fulol kungol taye ye yakundo ngajele ay kaw omar warta aya fenga ka ha yo ka mu gambe no dimu yala aba janale <laughs> india a ah, ako barolo wojo sa abatan sa momo ka dam barolo wojo momo dam da barolo wojo barala fo barala barala ambulo ko mo futa dela fo na na da za damo mo to jayla wa ambulo bi ñogu mom da fa sos group bi operation remove baro mhm. king sport duga fofu nonu mhm. ñom ñu defar t-shirt ne operation 3 years jot na ci sen t-shirt yi Kingsport ne nañ change tour bi def ko operation three years jot na nga am euh, euh, ñoom ñu bañ léegi Kingsport génn dem ibbi groupe bi boppam Kingsport ak ki ñoo wax Sirif Cissé euh, ñoo ibbi Kingsport moom bi ma ko interview mu ne moom groupe bi Sirif Cissé fans club for UDP moom foofu la nekkoon then muy champion foofu three years jot na waaye waaye ñu nekk si groupe bi waaye very much. Mm, ñu Sirif Cissé ko ñu ne ba UK. UK ah. ñene ba lolu ka violence ta ka créer muna sirif la kuma kan ya mai ba kam fo gambia habari kunun do ne nga interview yo ntel nga fa afuta gambia jube ako ati akabi ta gambia le ako bismillah nga singa jube sai king sport ko nga singa jube na afuta gambia asalan ko luwale bo ban ko kam king sport ko si group yalo mum yalo ah, what some gambian fail to understand there's a difference between uh, a freedom of speech -hmm. and violence ta ka create anin fanan ka ah, pour ka mol commande pour ye finde ta violence we mum faten ajita <laughs> janale a ah, uk lo sando school ol to ajita wonto amanji ngo yalon gambia high ah, ye eh, fefe hanin so so so so so hanin so eh, hanin so don't go personal hanin de don't go personal hanin de akata wala akko wala yata advice imala ko momet ako ako ako yuri bila lo ya mumba angleterre mm-hmm. wala ta eh, eh e ma ne e ko n deli kuma mɛ wala wala nin ko alal ko ala la hakkilo do ñing eh, interview lan i interrogated him on that nkaye ko i gañin kodi ko même fo ko je 100000 ne dingin la o wata watamin tole do you have any evidence Fake. Uh, uh, and all of that Fake news. abane quand fo e, so three years jotna <laughs> from what they said what Sirif Sise said what Sirif Sise and Kingsport said <laughs> Kingsport ko adebenu <laughs> Sirif Sise la groupe ole kono and he was trying to champion three years jotna ko je it wasn't going because everybody was talking politics, politics, politics. At another afosirizizeiko, I want to maintain this, but it a to open a separate group where we will be talking about three years jotna. Along I group on yele I strip sisele follow Lafaji. Um, and, and uh, of course, that is how the whole idea started. Mm-hmm. of course, a Guru Kang, Ebe Guru can do not operation, not executive from Gambia, Hajinyol Ning, Abdunjayanyol, and other people who are now behind the operation three years journey in Gambia. But same thing, problem will be tema. Nyimbe njang I'm interviewing them every day. Even today, I had one of them that is given to me, Kafume, I mean, uh, Mariama Jallo at the Gambia. Ibeko Wale Fenketa. So they are arguing them among themselves. Ha, ha. There's infighting. Niyaye infighting bije wolong hanin ba. Hanin hanin hanin kole kono jana kau yoro mankai tisoto jana kau yoro Yo hani hani mba yo. Yo, nte nte bukale fi nte bukale fi politics shi falla sante ninga ni interview bang ta yela mo UDP yala bi mo ne fal ita man karang ndamu chagol tijang te kadro you know more you, you don't have to go personal Let's do, um, you know, a nice politic. That means you can have a decent compensation. But you are going to do that, though. You are demeaning the UDP lawyer that went to Atata Santos School, next school, Gila Jange. Jama. That is personal. Ha, ma, no, honey, honey, honey, honey, honey. Not at a school in the UK. Ha, but, that is, ha. but how important is that, though? Is knowledge not knowledge? It at a school. Ah, honey, I'm not a lawyer. He's not a lawyer. Even in England, he says, Muna, solicitor assistant, no, no, He's not a lawyer. wala na ate fanga ay wala to fo je wa wala na be bin ni moda ko nyiko amankele c'est le la assistant lo lomo okay so this what uh, ah, nkana wolta no pour kada pour ka fo ko c'est le site la assistant ni man na ala fa la loya certificate do bonda tandi ko lo ko lo yalma te uk so he's been admitted in the bar yeah asitindi okay. c'est le site assistant lo mat okay. so wala na de nyindum wala ya te nene so wala na la buru gambe no le munda ya understand kamo critique ni kamo kong mm -hmm. aman man kelen ya jɛlen nin danga k'u kɛ i ni tɛlɛn fɛn dɔ ta y'a fɔ bari a jari i bɛ taa i bɛ ban not going to help so bi ñin nendiro ñine ne ka mol borandi UDP la wala bi mo ba jam faka UDP wala defa na jam fata UDP remove baro antriye jorna e be abanta mi kaw yoro ya fo jang demba ya fo original founders of 3H. UDP. This, UDP batende. t h o n e y h o n e y hande hande hande. y No UDP. h o n e i k a y o n e y h o n is not n UDP. Nko there You y h a n y o de nko. you Kayoro y is n o y o UDP. Hani hani you ndangu y mango. UDP b o t e n o d e bi. Nyunyu nyunyu o baka n y o n a m o tenga. Jodna. Iman l o n e break n e s p o n o s i b i l i t y o leta ninku you you o k u o a m t h a n s what they o r e scared. la prota responsibility le ta ndela nga foyo ko hey lo ya daba mu ani lo lo lo bang lo ya daba mu criminal loyalty mhm. lo ya la do ko mu buniti lo ya ka fanya le ta ake tonya da tonya ke fanyat wolo lo ya daba le do koti wana lo ya daba ka flip flop momu yalo ke imu lo ya de ka do ka ka tonya ke fanyat ka fanya ke tonya mbadi mm. muna na mata flip flop la bii yow tey da rey nit dem si lawyer mooy nga indi lawyer daa boy si afo ko ok a chef tele pour moye bankota yaadi lawyer daa bala bang momu yalo ba philip philip ka momu ya emu lawyer le fanante ite ke ba ba an ko gam jang ko le ko ngino nyin ba fana mbita ko mbita bi no because ye bay wasa mo finde kap mo le nyin nyin nyin nyin koy ko lawyer daa farut fen hani hani hani nka nka hani nka hani nka nka foyle ko three years dot na ni ya nyaje bibi hon puti puti ide ide mango da nyina <laughs> kelo strategy londe e man love ka responsibility da pour sama na ko pam ntanga nyimfo ya ya gele sama mo mo yalo nyin a fenko bala pap pameto bala wolle to bije ha ya gele sign iba fenko kila ina elle kila e wol bita wolle jubela gambe sign they are very well uh, equipped camera la ka tare bulu jang very sophisticated kamera wolu nga alnyaba drono jala gambia drono nga ngam nga ye drono video drono alba jala gambia dula beto ya ya wol nata pour kadu lalle jumbe aba masakundal bo control gam hey barashik yoda now they have drones drone mu yale bat ay batarala ni 3s ni am tanko do kamol jube ba netal ibe netal la jël ilafika kuwokuiba be video za efito wolu ngal nya drono ji sandal fa ba jahal dale bang yo final word <laughs> la ilaha illa allah ba rasul na final word wo na final word wala mbamo be tentu na mbal jayla mbafal mhm. na talibol ye ko gambia belong to all of us mbam fananta la mbal advice la ko ninga moja momu ya lonka aba wondi sio attack la mbela a uh, fen kolo nyinti mbela nyal mhm. nga ko condemn no matter which party Ha. No matter which party but bada miyajele, sifatam fanso and Cairo manta Somalia is because of sifatam fanso. Somalia problemo. Sifatam fanso londe. Somalia tribalism leva Somalia. Wana hani bi Cairo da Somalia. Wata nyimu kulte muya lonko is a threat to our national security bi. Alga nyaka si sifatam fanso la. Momo ni sifatam ah, ah, fanso fenko na ite yalo UDP kolo. What you guys should do alta marla komeno da alia amarla ko nyinjindi. Nalia maro ala mutual friend kamba no muya lon ako ye fulol fa. birin aya aya comment mola ja screenshot a kinyana bar kamba no nyin ala mutual friends lo ngole contact hmm yajel kamba no nyin ala amuda antol at on facebook la bari birin dunda facebook nga video ka kola ngala information soto walla yara fan dun ama hay mo sta kela adama katela fenkol bunda da crypto so i'm getting more information about him and um, um, um fana i will do whatever i can do pour ka je ko nyimmari wi ngo fenke fenke ah uh, lamin jete birin allota jala lamin am among of people mu yala facebook ben sede ya nga ko up to the last minute ngatande gambia bela ñin kay moma ñanna pour que lamin ta pour que fasa nga toña fo ñuy alin kana song alin kana song mola momu yalla ga banda mangol tan sapi ñokan kadu political lam ñin so let me get this straight you condemn UDP, but you don't condemn Mandinka, right? Because that's how some people live. It. You don't condemn Mandinka. Hani, ha, ha, ha, ha, hande. hande nteba kuma ka udp ntene ne mafo ko mandin ko nyine nen o surwa ten o fen ko ntene ne mafo anum fana enene ta mo fana ngafo because nte ne kuke ha nte nte ne kuke nte ke yalo nim misil mo kuke nin ta kuke mbilem barkana na dino bilim that's good ndete patro ninga kuke mbilim barkana na siyo bilim because nasio have nothing to do with me very good very ha. good so continue your na ha nasio has nothing to do with me so, so wala na mbava gamben kole angan kodi nyim politik sifala mm -hmm. is toxic mm -hmm. and mm-hmm. fana moka na siye mira ko mm -hmm. ko mu ka kete Rwanda takala no Gambia mm -hmm. asa keno Gambia ni ma hakilot absolutely so wala na mun kena import wono tribalism ko ninga je dawda alimbe nga condemn mm -hmm. anin benga fintin benga ni kuta nga condemn because anyanta wona bara bara nin ko ngande sama nin ko pam aba don ko na mom kun ko mom alon wona is very important nga hakilo to political it's not good it's a ah, alim mako nga barkalo politiko mo alim mako nga barkalo mo mo yala alkanda mo mba fala albe ko ala barka a ah, mo mo yala ban contact kan Mm-hmm. na facebook ba ibu mm-hmm. alsa longo na facebook ba ibu na ka use mm-hmm. use video be tam be be okay so mba be ko ala barka thank you very much ah, rek ah, ah, there is no doubt that he is a high household name in Gambia um, ito buusina I will not be surprised and I've heard this so many times iko yow Pa Ous yow da nga wéet yow ku kenn du jox plateforme <laughs> yow comédien si ak milifi ni nga dee jox because su ma la interview <laughs> the next minute ma interview Ismaila Kante in Germany <laughs> fi naari jaxannama kaal dina fiixa mhm. wala ma ñëw interview Njaay Maane and some people wala one pack you know, you, you just your platform. and I want to break the silence though, and I want to tell the people, comedians are making, bringing in a lot of income to the country. Comedians are giving a lot of <laughs> Comedians are serving as ambassadors for their countries. And either you like it or not, he has a voice. They have a voice. <laughs> Whether he's a comedian or whatsoever, it's <laughs> about time that we respect ourselves and respect our people. Do I agree with Baba Babaja on everything he says? No. No, you're right. Do I challenge him on a lot of the things he says? na kofilu Honey, people who don't like you, it's a Yes. Iba je, ha, iba, <laughs> Yes, I challenge him on a lot of issues that he said that I think they are not right or how he says them, he could say them differently and the like. But the reality is, he has a voice, and of course, um, if something like this happen, we need to go to the people who have a voice to hear their side and their version of the whole thing. <laughs> Tomorrow or Saturday, I'll be having interview with Ibrahim Adiba of uh, UDP. I'll be having him live and direct face to face. He's back to Seattle. I'll be having an interview with Ibrahim Adiba tomorrow um, or Saturday. We are yet to confirm it. You follow us on Gambian Talents. We'll bring that for you. I mean, I think Baba just said it all. It is very important. Tribalism is very, very, very important <laughs> that we take tribalism out of our national discourse. <laughs> <laughs> Gambia And it is important that everybody sees it. For them si people have graduated from that. know that tribalism can really really break our country and suñ ko breakee suñ boppa lañ koo defal <laughs> képp kuy champion tribalism know that you need to let go you need to let go because Gambia dafa ndaw ñun ñëpp ñoo bokk Gambia comme ni ma ko waxee ñun suñ néegoo si soo demee suñ kër Farafenni every single place kër bu nekk si suñ left side if I am facing this way këri soose la kër bu nekk fii këri pël la kër buñ jàkkaarloo këri pël la soo jógee si kër soose yaa ngi dem Joolakunda soo jógee foofu yaa ngi dem Jeen Kunda kër Paa Yusufa Jeen I can mention names of suñ kër Patumbul nga jógee foofu nga dem Kamarakunda këri Joola Joolakunda nga jóge fa si gannaaw nga dem Jeen Kunda Père Pa Yusufa Jeen nga jógee fa nga continuer nga continuer nga continuer it is mixed and this is what we know <laughs> so it is about time that us Gambians we take this thing serious and stop this tribalism ñu xam ne politics is about nga convince ma wala ma convince la suñ mënutee bokk fuñ gisee nga jàppa fi nga jàppa ma jàppa fu ma jàppa waaye ñu def ko in decency ñu def ko with maturity political maturity is lagging in the Gambia Gambians dañ war a am political maturity lu la neex wax lu la neex def crassy mhm. du kulubal yaa crassy du yebaate crassy mhm. and this is something that is very important for us to understand at the end of the day Gambia nag ñoo ko moom ku ko taal sa boppa nga ko taalal de mhm. muy ndaw yi ma wax leen ko yéen lii leader si ëllëg de mag ñe kilifa yi dunda nañ li ñoo dunda ba pare ye même balu yi ñan tamit balu la yaa balu le and if you destroy the country if you spoil the country you are spoiling security officers yi yéen it xam leen ne seen i rakka yeeg seen mag yeeg seen yaay yeeg nijaay yi ngeen a diilal and it is important that you know that you understand that and you be very responsible with the way you act politician you am um, uh, president Barrow la lawyer Darboe Halifa Sallah la lawyer Darboe waxa lawyer Darboe lawyer Darboe <laughs> la uh, you name it my party all of them you have a responsibility in as much as you want to lead the country, you also have a responsibility to bring in peace into the country, to maintain the sanity of the country. <laughs> Bullet sets and selfish interests they can jeopardize dëkk or the security of the country, whether it is Fabakar Tombong Mangata or all of you guys. Buñ the floor, Hamne. gëmuñ ko buñ def loo xam it's not right buñ the floor, Hamne. Or daf and this is my suggestion <laughs> religious leadership, bull and talk, <laughs> is very important ku nekk xam nga sa bopp ku nekk xam nga li la yàlla may <laughs> ak the cross section of Gambians around the world ñi ci diaspora bi buñ toog rek am access to internet mun a toog bàyyi groupe wax tojaage si whatsapp abanta abanta ñu whatsapp boobu itol ñu des borangol ñu des borangol because yàlla tubaab du jox wifi free ibe buula free la free waaw wala pare dindi la free ku free nga dem uh, uh, lu la neex nga wax lu la nañ xam ne suñ péréen seeg suñ rakka yeeg suñ maaka eh, foofu and leen talent tv ñu ngi koo bëggee bu baax a baax a baax ah, ci li ñu may bës tuuti mu ne moo ñu may bës ma ah, ah, a a maa leen may bës di waaw ma ma ne la ko jox man du ma ma ne <laughs> man maa nekk Serigne Capacole borom boos moom utuma boos de suma kër laa nekka boos ñëw koŋ-koŋ mu ne Serigne Capacole ma ne man boos moo a wóorul moom maa la Serigne Thiapathioune la xale bu xëy rek nekk ca man la ah, ëllëg ngeen seetaan ñoo ko bàyyi show follow us on YouTube Gambian Talents ah, TV follow santa ah, si seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet ba ëllëg wala gannaaw ëllëg ñu indil leen Ibrahima di Diba insha allah men in the next 30 minutes al sinna man ninka programme o jibe nka menke lokung lokung ning alaji Ibrahim mama koto is coming up in the next 30 or 45 minutes inshallah because of this interview we shifted but every thursday at 11 o'clock we have a specific program called men nyanta we'll be talking about certain things ngalo yudi yudi bingole jusol ba tay kanne sen hol yaage taj ngal na jusol ba feten